mbokk yi jërë ngeen jëf di rafet lu baax baax ànd beeg seen télévision leeral TV leeral euh, point net euh, seen tamit ngeen di suivre ci TNT bi canal 33 euh, tamit daleen ak jàmm seen émission 12 minutes chrono. tey jii nag 12 minutes chrono waxtaanee lépp jëm ci actualité nationale ñu fas yéene dalal fii ci kër gi ki nga xamante ne moo di Moustapha Absa Fall moom tamit bokk ci APR di fa militer bokk tamit ci mouvement Dolli Macky ñu ngi leen nii bu baax Moustapha. waaw maa ngi lay fay Moustapha sama trondo Euh, di nuyu mbokk Sénégal yëpp euh, di leen ziar euh, di wax ne ñëpp ñu ngi leen di baalu àq di ñaan yàlla yàlla na fi jàmm yàgg sunu mag ñu baax ñëpp muy xalifa généraux yi ak nit ñu baax ñëpp yàlla yàggal leen sunu kanam bu baax a baax. Moustapha Fall yow kañ nga tàmbali militaire yi nga xamante ne moo di APR. waaw man depuis bi ma nekkee jeune ba léegi maa ngi milité Alliance pour la République depuis 2008. laa fa tàmbalee décembre 2008 di militer alliance pour la république. Mhm. ñu nest nekk ci nguur gi yéen a yéen a yor fi mu ne pouvoir bi tamit ñu gis fi mu ne tamit li nga xamante ne moo di actualité principale la ñu mën a wax mooy wàllu littoral bi euh, fi mu ne am na ay kilifa politique yu génn dénoncé li nga xamante ne moo di caxat caxat gi ñuy caxatee li nga xamante ne moo di booru géej gi d'abord yéen yow sa position bi mooy lan ci li ni mel. waaw xam nga xam nga rek c'est que Sénégal dafa bari ay ñoo xam ne nga baal ma ay waxkat. parce que lu jóg rek nekk dans le tous les sauces lu jóg rek man ne un technicien du ma environnementiste jànguma domaine du ma des impôts et domaines du ma nit koo xam ne xam naa si littoral lu bari parce que sa joor ga laa jógee parce que question boobu man jàpp ma ni am na lu ñuy caxat caxatee parce que am na nguur gu fi nekkoon bari naa lu fi signé mais fi mu ne nagam euh, pouvoir continuité la euh, ñi ngi wax président Macky Sall yooyu mais président nekkul si boobu dispositif. est-ce que amul benn mutisme président par exemple sénégalais ne day mel ni info dañoo information ci littoral bi. waaw mais mais information am na amul scandale bu fi am ñi war a wax wax nañ mais jàpp naa ne am na nit ñoo xam ne li ñu ciy wax dañ ci bëgg a nekk di profito di wax mais amul lu si am man nag nekkuma. nekkuma un technicien boo xam ne maîtriser naa littoral parce que nga baal ma si joor ga laa jóge man maa ngi jóge maa ngi cosaanu Daaru Muxti jóge Daaru Muxti ñëw wax di yàlla di wax si littoral euh, yenn yi te jànguma ko bi may jàng aussi du mën a sotti daal. Hmm. waaw hmm. kon daal mënoo ci avancé. Ah, bi nga xamante ni fii mu ne daal euh, moom la seen opposition opposant bi di Barthélémy Dias di mën a combat fi mu ànd ko ay société civile. mais Moussa xam nga borom gimiñ guy naaj du wax jàmm. xam nga fi mu ne li fi nekk mooy président Macky Sall Sénégalais yi ñoo ko fal avec cinquante huit pour cent muy doog a démarrer du ngor sax dafa gudd sax xaajalu gudd sax ñuy nekk di wax ku ne di wax ay nangam nangam nangam fi ne Sénégal euh, comme ni ñu takk woon ñu ñun yëpp ànd di xeex mbas mi ak concentré wu pour suñ économie ak président li mu taal mooy porter combat au niveau international porter combat Afrique foofu pour que ñu baal leen det Euh, dette bi nga xam ne moom la ñu yoreel euh, les pays étranger ba PAP bi ak ñeneen ak ñeneen di ko di ko di ko wuy si président vidéo conférence yi muy def ak les chefs d'État ak organisation mondiale yi kon kooku amul jot di di di wax mi ngi si liggéeyam Euh, pour pour que mën a jàppale les Sénégal. Mhm. beneen coow tamit Moustapha Fall may fàttali yow yaa ngi bokk ci mouvement Dolli Macky di militer tamit parti bi di APR ñu gis ci tamit li nga xamante ne moo di Covid 19 daloon Sénégal dal àdduna laay wax nekk jàngoro bi nga xamante ne wàccu na ci ci àdduna bi muy mbas mi. ba mu amee nag président jël na ay mesures après fii mu ne levé nañu li nga xamante ne mu levé mesures restriction yi daal yombalal lépp d' abord yow gestion Covid nguuru Macky Sall yow ban analyse nga ci mën def yow. waaw xam nga Covid bi. d'abord damay jaale ñi nga xam ne euh, yàlla moom la leen si seen bakkan di jaale seen i famille di leen ñaanal yàlla suñ borom xaare leen àjjana ba ñi nga xam ne tëdd nañ hôpital wala ñu nekk si ay cas yu yàlla fëgg seen bopp mais li ma jàngat def ko mooy euh, président Macky Sall bi jën waree jën jën na wax ak sénégal yi wax taxawal benn comité scientifique ay experts de santé ay boroomi xam-xam ay professeurs ay médecins yu xarañ ci plan yëpp ñëw bokkandoo di xalaat di xeex si pandémie bi gis naa ni bi jot ñëwee bi yëf yi ñëwee gis nañ ni activité yu bari dafa woon président jàppale na nit ñi jënd ndimbal boo xam ne pour mu dem si nit ñi pour jàppale leen. ndimbal gi am na ñuy wax jotaguñ ci ba léegi de. xam nga xam nga xam nga ñu ngi wax ceeb mais xam nga xam nga xam nga loo xam ne danga nga war a choisir ñi ñu ko yeyoo danga nga ciy def ndànk pour que nit ñi xool mu yegg fa mu war a yegg. mais boo ñëwee parax paraxee ko rek joxe ko mën nga ko joxe anam boo xam ne du nekk anam bi gën parce que président dafa bëgg si nit ñi nga xam ne ñoo ko yooyoo ñi nga xam ne seen doole jotu seen gannaaw ñu jot si mais pas jox ko wala kenn jox ko militant wala kenn loolu président nekk si boobu logique moo tax ñi mu ko dénk xëy na si loolu lañ nekk si boobu logique moo tax yëf yi da yeex parce que dañuy war a choisir ay nit ñu ko yooyoo loolu dafa laaj ay enquête dem nit ñi dem ak ñëw positionné Euh, ceeb beeg yooyu le temps que ñu koy sous-préfet yi di valider ak yooyu di def nangam loolu dafay jël temps. Mm-hmm. fi mu ne président euh, affaire si ndogalam nee na ubbi na lépp ne Sénégalais yi tàmm dund ak ak virus bi est-ce que jàppoon ni Moustapha euh, yéen ñii tamit de fuite de responsabilité. non non fuite de responsabilité amul parce que président bi mu waree jël responsabilité am taxawal na li nga xam ne mooy couvre-feu daal di état état d'urgence sanitaire tey ji ñu ngi wëyal état d'urgence sanitaire bi aussi ak couvre-feu mais teewul nit ñi sénégalais yi dafa am ay ñoo xam ne ci secteur informel la ñuy dund Moustapha comme man wala keneen borom kër boo xam ne dafay xëy dem lijjanti ji dépense soo ko tëjee ñetti weer métti na parce que président xam na réalité sénégalaise ab sénégalais la fii la juddoo dafa ramper ba yegg si fii kon loolu jàpp naa ne président euh, bu def jëlee yenn responsabilité yi am lu mu woyofal rek am na fu mu ko fu mu ko fu mu ko bu baax parce que nit la kuy diisoo. Eh, day mel ni tombé ma ay gaaf askan bi dañoo génn manifester rek mu sa suba sa ñu ni. mais non ñu manifester est-ce jàppoo ñu pression askan bi. mais ñi ñi manifester ñooñu ay ay ay xale la ñu jénn xëy na am na yu ba mesure yuñ bëggoon ñu ubbi ko yooyu ubbiwuñ ko mais jàpp naa ne président doxul ci pression ku ko xam xam ne nit la koo xam nit ku daal nit ku am fulla am fayda am gëm-gëm xam li nga xam ne moom la ko responsabilité yi ko Sénégal yi jox mais président moom ay pression waaw. 12 minutes chrono tey jii ñu ngi dalal Moustapha Fall di militaire parti bi APR bokk mouvement li nga xamante ne moo di mouvement Dolli yi nekk mouvement mi nga xam dafay jàppale euh, président Macky Sall Moustapha Fall tamit ñu gis euh, li nga xamante ne jamono ji tamit muy wàllu yoon rek dem nañ fi attendre benn benn benn journaliste bii di Cheikh Yérim Seck euh, mel ni sax fi mu ne mi ngi bénéficié wu benn li nga xamante ne moo di sous contrôle judiciaire am ñu ni par exemple Sénégal day mel ni droit d'expression maanaam wax. liberté d'expression dafay tumurànke waaw mais liberté d'expression ku wax ñu ku wax ñu tey dina entendre non non président Macky Sall bi mu ñëwee gis ngeen ne bari na lu sooxe woon si wàllum yoon mu ñëw taxawal lu bare bare bare xeex si avant bi mu nekkee opposition daf si xeex ba loolu jógee injustice moom moo ko tax jógee fa mu jógee ba yegg si fii euh, jàpp naa ne yoon damay wax sama mbokk Sénégal yi war nañ respecter suñu magistrat yi gën leen a respecter bu baax parce que ay nit lañ yoo xam ne dañuy sacrifié wu di liggéey ba vingt trois heures ngir seen dëkk am yoon am démocratie nekk ay nit ñu ñu rampe xeex jàng def formation lu ne ñu daj ko ba yegg si fii man ni ma respecté journaliste bi respecté médecin bi war naa leen a jox boobu cër parce que ay nit leen yoo xam ne kenn déggu leen si lu ñàkk fay def justice su Sénégal dafa indépendant te ministre de la justice bi fi nekk man maa ngi ko gis naa ne mi ngi def liggéey bu am solo parce que gis nga kaso bii nekk si bi xotaan sunu mbokk rëbës yi dafa feesoon ñu koy jàmbat tey jii fexe na ba kaso boobu ñu accéléré ko loolu président Macky Sall moo ko réalisé ñu accéléré ba nit di fa jël ay nit di ko transféré lu tax loolu duñ ko wax am na ay xale yu nekkoon ci mbedd yi doon taxawal recensé nañ leen jël leen yóbbu leen ci ay centre centre ministère de la justice xale yooyu ñu ngi def ay pour pourquoi nit ñi duñ wax loolu ma jàpp ne yow bu nekkee ne ab juge daf la daf la daf la daf la xool. yaa ngi wax ci wàllu damay wax ci ci wàllu. mais dama leen waaw mais yoon. tey ji am na ñu bokk suñu nguur. defuñu lu yoon mais yoon dafa dal seen kaw kon président lu tax dép protéger wul ñooy kon jàpp naa ne Sénégal yëpp a yem. mu nga man mi mm-hmm. mais exemple man tey su ma defee lu dul yoon. yoon day dal sama kaw maag citoyen de lambda bi ñoo yem parce que man sénégalais laa comme ñëpp gis nga journaliste man respecté naa ko mais bu boo bëggee yow journaliste nga respecté ma ba pare yow respecté woo ma mais problème dafay am am na liberté d'expression nit ki am na droit wax xalaatam mais nit bu defee ay révélation te amu ci preuve yoon man am na droit woo ko laaj ko bu nekkee ne la yoon def loolu sañ-sañu yoon la man duma ma juriste xaw ma si yoon dara mais justice bi dama xam ne les les les ak juges yi ay nit ñu indépendant lañ te nit ñuy def liggéey bu am solo ci Sénégal man dama jàpp ne ñun ñëpp war nañ mën a doon bloc respecté leen gën a gëm suñu justice du réew mais man euh, du ma du tey bu ma bu ñu ma defoon contrôle judiciaire ak gëm sama réew ak bëgg sama justice du réew ak gëm démocratie danaa respecté la nga xam ne moom la ma juge yi wax parce que ay nit lañ yu maandu yuy def seen liggéey ni mu waree. Mm-hmm. Moustapha Fall tamit euh, beneen jafe-jafe bu Sénégal yi dund jamono ji jëm ci ñàkkum ndox mi fii mu ne gis nañu maanaam dëkk bi ñëpp a ngi kaas ndax amul ndox. loolu est-ce que jàppoo ne par exemple war nañu mën a weesu fii déedéet ba sénégalais en deux mille vingt ñuy kaas problème mu ndox. waaw mais xam nga xam nga tey dañu nekk ay ay réalisation di régler ay problème tey ji euh, man nga war nga rappelé wu 2012 li nekkoon problème mooy mooy problème mu courant léegi kenn problème courant kenn waxatu ko gis nga mi ngi def ay réalisation mi ngi def ay branchements sociaux gis ngeen KMS 3. yooyu yëpp bu ñuy def ay chantier yi di def yenn montage loolu ñi jàng hydraulique xam nañ ne jafe-jafe day am mais président si logique bi mu nekk mooy léegi ñu regle problème mu ndox nga xam ne ndox dañ koy fàtte man parce que président ku la fayal ndox ñaari weer yi kay gis nañ ne président moo jël si programme de résilience bi fay ndox mi ak courant bi ku lay ku lay ku lay fayal ndox kay bëgg na nga am courant kon loolu président jafe-jafe yi jotul ñu xool politique gu politique gu ndox mi gestion ndox mi gestion bi président président jël na ko am mais non mhm. jël ko am bay taxawal li nga xam ne mooy KMS 3 yaakaar naa bien bientôt euh, liggéey ba pare na ba pare gis ngeen ay forages supplémentaires ñu ngi koy def dans les zones comme lu demee ne ay Foire ay Sud Foire yooyu yëpp am na parce que noor Foire yi ay problème ndox la daan am banlieue bi ñu ngi fay def ay ay forage supplémentaire boo demee si dans les villages ñi ngi def ay addition d'eau ñi ngi def ay sotte d'eau kon loolu dafa nekk loo xam ne dakaar aussi dañuy comprendre population bi dafa yokk dafa am li ñuy wax exode rural nit ñi dañuy jóge si dëkk àll bi di ñëw dakaar population bi dafay yokk bu population bi di yokk nag consommation ndox bi dafa yokk te jamono ji dañoo nekk si jamonoy tàngaay. jamonoy tàngaay. dañuy gën a consommer ndox. Mhm. yow ngay militer tamit fi nga xam xamante ni APR si Louga suma ma su ma su ma juumul euh, ndax da am ambition politique au niveau au niveau local wala am da ngay jàppale. ngir kenn ngir mu nekk ci boppam. waaw damay jàppale euh, le président Mamour Diallo nga xam ne nitam nit la ku am euh, leadership la bu mag foofu. buy incarner politique de développement di suivre les actions yi nga xam ne moom le président Macky Sall di def. mooy politique de développement lay def foofu mooy di jàppale les femmes di leen former gis ngeen temps yi passé def na benn recyclage boo xam ne plastique yi nit ñi doon for déchets yooyu mu jël ko def ko def ko recyclage def man si defar ay ay yi man si defar ay ay ay euh, pavage ak yeneen ak yeneen loolu la nekk di en di former nit ñi si ñu defar ay paan jigéen ñi di leen defal ay formation di leen di leen former di former les jeunes yi avec l'ANPEJ ci politique de développement boobu la nekk mu nekk leadership bu am solo bu muy incarné au niveau au niveau de Louga. Euh, te te te mbokk Louga yi ñu koy ñu koy fekk daa am ay ambition locale. Euh, euh, waaw xam nga xam nga ambition moom xam nga ambition moom képp kuy politique am nga ambition. mais nag ambition dafa am heure bu ñu koy wax ak heure bu ñu ko dul wax mais. nit kuy politique kay ku man am naa ambition ku ne yow keneen am nga ambition yow mii journaliste nga mais am nga ambition sa kër wala leneen. Mamour Diallo le président Mamour Diallo mu ngi si logique gu accompagner son excellence président Macky Sall si plan Sénégal émergent bii mu teg muy PSE horizon deux mille trente cinq pour que mu gën a yaatu askan wi gën ci gis boppam moom si boobu logique la nekk ambition nag wala loolu lu ñëwagul mënuguma see wax. <laughs> ñu gisee tamit euh, Moustapha Fall mais fàttali yaa ngi ci euh, APR euh, d'abord fii mu ne programme de résilience agricole bi nga xamante président Macky Sall dégagé na ko yow jàpp nga ni yow loolu dafa nekk initiative bi nga xamante ne dalay dalay initiative bu am solo la. waa xam nga tey jamono ji dañoo nekk si jamonoy bay te président dafa gëm bay parce que bi mu ñëwee dafa taxawal auto autosuffisance en riz daa di jël vallée bi daa di taxawal sayet bi nga xam ne mu gën ko yokk doole pour que nit ñi mën a bay ceeb ceeb boo xam ne euh, dinañ ko mën a consommer au niveau moo tax tey jii ren boo gisee ne soixante mille tonnes arachide joxe gun nañ ko si objectif boo xam ne soixante-dix mille tonnes te tey jii boo xoolee daaw joxe woon nañ euh, sept mille tonnes de riz mais ren dix mille la ko yóbbu mu jële woon budget bi euh, quarante mille euh, quarante milliards la woon ren mu yóbbu ko soixante milliards kon loolu président dafa gëm dafa gëm mbay mi loolu laa bëgg ñu koy wax sénégalais yi mais ay coowal scandale amu fii noonu la ko defee sur le plan électricité tey ji boo xoolee euh, dans les dans les villages dëkk yi amul woon courant mi ngi fay yóbbu avec euh, avec le programme ASER ak yeneen yeneen yeneen organisation ànd koog Senelec kon président mi ngi def liggéey bu am solo loolu la Sénégalais yi xam parce que moom nit la ku gëm réew mi parce que dafa def tournée économique dëkk réew yi euh, Sénégal euh, président bariwul fu fi demul dem na si gox goxaan yëpp xam ne lan la ñuy dund. xam ah, nag àll bi nag boo xoolee àll bi ay jafe-jafe tar. dañu am ci wàllu ci wàllu dund ba léegi nii tamit jafe-jafe ak nit ñoo ànd man mii tey maa ngi si jafe-jafe. keneen keneen nguur gi dafa taxaw ngir saafara jafe-jafe loolu suñ borom moo bind noonu. tey ji boo xoolee programme de résilience boobu bii mu taxawal di mille milliards yi nga xam ne jamono ji secteur yi dafa privé bi secteur lépp dafa taxaw mais téewul euh, président mi ngi. mi ngi mi ngi xeex. mi ngi xeex ak ak partenaires euh, partenaires sociaux yi pour ñu dindi dette bi pour que réew mi mën a am koppar yi ñu soxla. mais da ngay dégg ay milliards ngay dégg. min non non mais milliards mais milliards par rapport ak effectivité bi par rapport exemple euh, mu nekk lu concret li nga xam askan ñëpp dañ ciy gis seen bopp. loolu moo seen bopp kay tey mooy tey jii. ku ñaari weer yu weesu kenn ku ne gis na sa compteur ñi am compteur fay ñu ko la ñi am compteur waaye fa gis nañ ay remise de crédit nga basé wu ngir non non mais dama ne loolu lu réalité la bu nit ñi dund dund gi ba tey jii am na ay dëkk yoo xam ne dund yi yokku na yokkul tey jii boo xoolee bari na système économie bi ñun nuñ ko nuñ ko kiwee loolu laay profité si sargal sunu bokku euh, soldats de l'économie les douaniers avec leur directeur général ñi ngi def liggéey bu am solo pour plan économie parce que Sénégal dafay dund si recette ak loolu di profito di sargal les les les inspecteurs des impôts et domaines parce que Sénégal dafay dundu dundu si recette ñuy def liggéey bu am solo c'est que loolu la bëgg ñu koy expliquer Sénégal mais Sénégal amul benn scandale bu fi am tey jii coowal jàmbur coow lu am euh, bati police wala dara famille Farès dëkk fii di ay sénégalais di def fii action sociale yu am solo mais ñu jël bëgg jël wax jooju bëgg koo jël bëgg koo def nii nangam mais scandale amu fii ñee dañoo jël seen alal porte nañ plainte yoon mi ngi def enquête dañ déglu yoon gis nga dossier bu nekk si yoon dañu war a respecter justice Sénégal parce que Sénégal dafa am ay juges yu am solo ak ay magistrats yoo xam ne sur le plan international ñëpp leen respecté Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dañ ñu respecté te coowal ndox lii gis nañ. tey pourquoi ñuy wax ni famille euh, communauté libanaise bi ils sont des intouchables kenn leen laal fii ci Sénégal non non fii personne est intouchable fii amul ku kuñ fiy protégé ñëpp a yem ñoom famille Fares boobu ngay wax ay sénégalais lañ fii lañ juddoo depuis quatre-vingts ans ñi ngi fii am na ay nit ñoo xam ne fii lañ liggéey foofu lañ liggéey ba retraité. am na mille personnes lañ lañ lañ employé seen i seen i seen i seen i filiale kon ñooñu dañ leen war a jox considération fee ñu monte seen usine bi di ren mais ña ngi fay def ay réalisation dans les village yooyu di leen jàppale sur le plan social kenn mosu leen dégg si dara. mais bu dee ci wàllu impôt est-ce que ils sont. mais fii amul ku doon fay impôt képp ku yor entreprise amul kumba ndey ak kumba amul ndey fii ñëpp a yem dama ne fii gis nga président dafa ñëw xeex li nga xam ne mooy kumba. sàmba am kumba nday ak kumba amul nday nañu gën a respecté sénégalais yi te xam ne sénégalais yi ñoo fal président Macky Sall man li ma bëgg mooy ñu xam ne réew bi président da ko fekkoon si ay jafe-jafe croissance économique bu taxawoon coono yi fii courant xuy kamaj yooyu yëpp mi ngi régler ay problème infrastructure yi yaa ngi gis autoroute euh, autoroute Ila Touba nga gis pon cité kër góor gi circulation bi daan am foofu grand mais loolu lépp gis nga bi Covid gisoo chantier yi taxaw mais loolu lépp président leadership am au niveau international nañ ci wax sunu fierté la bu jëmee ba pape bi pape bi nit la ko am personnalité au niveau international chef d'état yëpp fekk si ko loolu dañuy war a tàcc sunu chef sunu jiitu réew man maa ngi profité si occasion bi di ko sargal son excellence président Macky Sall. Mmh. am na solo sa kàddu gu mujj. waaw euh, ah, sama kàddu gu mujj mooy Moustapha Absa Fall mmh. sama kàddu gu mujj mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk muy opposition muy pouvoir. may wax sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal alliance pour la république bokk ak ñoom euh, mouvement présidentiel te président choisir leen xool ba mu doy leen mu choisir leen parce que c'est le chef ñun ay républicain lañ ku mu choisir ku ne dañ lay respecter te dàqu ñu ñoo jàng seen tekkaaral gi ak ñàkk engagement nit daal bu demee ba amatul engagement si dara man daal je pense que nga bàyyi loolu far euh, honorable député Farba Ngom wax euh, da nga jàpp ni président da nga ànd ak si ànd ak moom yow. ak moom am na nit ñoo xam ne am nay nit ñoo xam ne am nay xam ne tey dañoo waroon jënd di wax te waxuñu nit ki nag boo amatul engagement si dara da nga war a jënd mais président Macky moom xam na fu baax a baax mais si benn benn crise interne bu am ci. non non non ñun amuñu crise interne ñun suñu chef la ñu am suñu chef mooy son excellence président Macky Sall taxawal na plan Sénégal émergent horizon 2035 moom plan dafa leer moom bi ñuy wut réew mi dafa amoon plan bu leer. si boobu logique la nekk amul crise interne bu fi am ku créer crise wala di créer scandale loolu sa yëfu mbiru bopp la mais daal nit ki man Moustapha Fall su ma demee ba amuma engagement si dara da bu ma demoon ba gisu amatuma engagement si alliance bu laa bi damay bàyyi dem man loolu laa gëm Moustapha Absa Fall ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax nekk ci euh, parti APR di fa milité bokk tamit ci mouvement dolli Macky mu nekk seen émission 12 minutes chrono di leen jaajëfal bu baax baax yéen doog di daje incha allahu rabbi beneen numéro ci leeral TV leeral point net canal 33 Pape Omar Gueye moo nekk réalisation bi jërë ngeen jëf.